maa ngi tudd Serigne moodu mbakke ibnu Serigne Moustapha Alhaji Bara ibnu Cheikh Mamadou Fadal maam euh, li may digal nit ñi daal di ko digal sama waa kër mooy ñu ànd ak dal te bu leen kenn dugal ci leen la xamante ni àndutug ak dal ndax ab dal akub yar bu lu mu am rek loolu am njariñ loolu lay digal ñi xam ne sañ naa leen ka digal te ñu aju ci man li ma gis di dalut xel ndax ñi fi de amuñu solo ndax li tax amuñu solo mooy bëgg nañu indi fit fitna ci réew mi te fitna nag képp ku koy indi sa ci yow lay waat kon nag képp ku ànd ak Macky Sall ngaa xool bu baax xam ne nguur gu dut nguuru suñ borom day jeex te ñun waa Kër Sëñ Tuubaa waroon ñoo fexe ba ñàkk suñ bopp ba kenn duñu mën a bët waaye koom-koom ak alal yàq na lu bari. waaw président Abdoulaye Wade de li ma koy ñaan moom sama maam la sama xarit la. ndax ku amoon wëllëre ak suñu maam Cheikh Mamadou Lamine la woon ku fonkoon la bañ ne ko bi Serigne Saliou ñu ñibbee àjjana dafa ñëw jox boppam Cheikh Mamadou Lamine lépp lu ko suñ baar ma sa ñaan jiit bi mu nekk Serigne Touba ñaari at ak juróom benn weer yi mu nekk Serigne Touba yori confrérie mouride lépp lu ko suñ baar ma sa ñaan rek président def na ko ba ci nguur si fi nekk muy Macky Sall ñëpp na tëblewu ñu ne bu tur Cheikh Mamadou Lamine mi ngi ci kaso bi te am naa ci firnde yu leer mu ngi may dégg waa këram ñu ngi may dégg ñëw na ba tàyyi jooy fii ba bëccëg guddi heure bu ne ñëw na ko fii di saraxu sëñ Baara ñaanal ko na ko danga jot ci réew mi waaye depuis bi mu nekkee faloog léegi dafa mel ne ñun ñooy ennemi am musta teg tànkam Aliou Aliou amul poste de santé amul hôpital amul dara waaye nag mu dëkk ba def na fa la nga xamante ni ku fa ñëw da nga xam ne kiñ fi bàyyi am na jom ndax bi fi sëñ Baara jógee def na fa daal Alxuraan def fa poste gendarmerie ngir aar dëkk ba. kon ku dem bay tabaxal sa bos poste gendarmerie sa bopp sa xaalis bopp xam nga ne kon soxlawoo état. njaboot sëñ baara moom man sama paar bopp laay wax amul lenn lu mu defal njaboot sëñ baara sëñ galas kalto mi nga xam ne moo ko indi sëriñ bi moom la gën a noonu yàq nañ diggante ak moom. te am na jamono yu Macky Sall bu masaara dugg Touba benn sëriñ du ko nangoo recevoir ndax booba ñemewuñu Ablaye Wade booba kenn ñëwatu tugg ab Macky Sall ku dul galas kalto li may ñaan dal di ko ñaan sama mbokk taalibe yi di ko ñaan sama mbokki bopp yi mooy nañ ñëpp ngir la waaye rek waaye nañ jàppale président Idrissa Seck ndaxte kat wan ne ne moom taalibe Serigne Touba la ñu bëri nag neexu leen am na ñu muy dem sax ñu koy nëbb tudd bañ kaa euh, euh, na ko jërul ngay ñëw jégal nañ la ko loolu ñun xam nañ leen duñ tudd kenn kon képp ku yaakaar Serigne Touba war ngaa def solidarité jàppale Idrissa Seck Serigne Touba kat njariñ la lu ànd toog lor sa na xen bi laa dara kon képp ñëw ci moom war nañ laa fat biir far la ci biti yiir la jàppale la ba nga am ndam ci li ngay wut. musuma def point de presse musuma dem ci télé musuma dem ci rajo musuma dem ci dara waaye nag tey sama xol bi ma yeewoo ko mënuma ñàkk génne lii nekk sama xol ndax bu ma ko rek dana am lu des ci man ndax asgor laa doomu jullit laa jur nañ ma fa ñu ma war a jure waaye nag sama xol moo dem ba laaj ne faaw ma leeral situation rek mi fi mu toll xam naa ne daal bu ñu defee musiba ba ñuy toogaat danañ gis luñ mës a gis. ndax benn sëriñ dootu ko tegati fenn Touba moom mën na ko fee bañ mën na bu ko neexee waaye nag na xam ne nguur gudul nguur suñ borom day jeex man de li may ñaan saa yu ma jëlee di ko ñaan te yàlla may dégg mooy Macky Sall jug ci réew mi abal ñu réew mi am jàmm dal am patient képp ko gën ci réew mi suñ borom jox ko ci ñuy xëccoo. ñii ñi daal li ma leen di conseillé yor seen carte dem wote ji bu fa nekk di xuloo bu ñu nekk di xeex carte moom bu ñu wotee bu ñu wàññee carte yi bu ngoonee danañ xam ki gañaa waaye nag am na lu ma dégg ci yooyu bay ci la ñu leen jege ñu ne élection yi réglé dañ ko pare te moom sax dafa mel ne dafa am dafa am dafa am dafa am dafa am activité ak conscience tranquille rek boo gisee xam ne ne kii moom jàpp na fu dëgër. Touba moom nekk na ville ba nga xamante ni ko perte ci élection yi perte Thiès perte Dakar gañaa nañ la moo tax nu mu mën def pour saboter tuba dana ko def. kon nag waa Touba nañu am fulla bañ kenn bañ a saboter élection yi ndax fee ma dëkk ci Touba Aliou rek am na carte d'identité Sicap Touba lañ ci def Sicap Touba ku ko xamut mi ngi nekk ci janatu ci ginnaaw kër Serigne Saliou boo yemee ci clinique Ndiaye ba ca kaw cité Serigne Cheikhouna mu Serigne Modou foofu la nekk. am na carte d'identité yi lañ bindoo Sicap Foire lañ leen defal woote te am na ñu xamut Sicap Foire moo lay xamal ne kon nar nañ ay tappale ak i sàcc li ñu koy dénkaat daal mooy soxlawuñu daraam ndax defu fa dara du forage bu ñu may du passeport bi mu ñu may du dara ñun avant muy nekk président am nañuy passeport diplomatique kon soxlawuñu daraam. ñu ngi sant sëñ Tuubaa tamit ndax bu ñu génnee seet taalibe sëñ Tuubaa yi dara ñu teral ngir jëmmi sëñ Tuubaa fii ci Tuubaa tamit ñu ngi suñu liggéey bopp ñu ngi jënd ka jaay ñu ngi yaxantu ñu ngi business kon ñun nekkuñu rek toog di xaar ay addiyee wala ñuy xaar dara ndax kat ku la mënal sañal la dañoo fexe ba bëgg a mënal suñ bopp moo tax dépendruñ ci état dépendruñ ci opposition dépendruñ ci kenn ki ñu wëkk suñ bopp daal mooy Cheikh Mamadou Fadal man na kanam man ginnaaw ndax laajoon nañ ko na ko samba man na kanam man ginnaaw mu seen sàmb bokku ci man naa sama kanam man sama ginnaaw te Cheikh Mamadou Lamine mi ñu bàyyee tamit ñëpp gis nañ lim liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax bay do Sëñ Tuubaa ñaanu moo ci njëkk dugg suriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jël nabiyal Mustafa tajtahidu mooy set bi njëkk wut Sëriñ Tuubaa liggéey fi la nga xamante ni ku ñëw da nga yàlla na fi Macky Sall jugee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Khadim barke te ku gën ci réew mi suñu borom jox ñu ko ndax Macky Sall moom amul solo ñi ma àndal amuñu solo te duñ dara.